combat bi ana Kalidou combat bi yaakaar naa ne bokk na ci combat yoo xamante bi nii Saba dafa bëre ci combaam génn ci nee na dafa def erreur daanu digganteem ak Macha boobu ba léegi promoteur yi di ko topp di ko wutal adversaire yaakaar naa ne bari na combat ñu doon démarché mujjewul taxaw ba mu digganteem ak Ardo moo mujj a taxawoo. Ardo nag fii la mujj a bëre ci stade bi digganteem ak Mbagnick Diouf Kayre ñëpp ne accès de confiance la def ba daanu ci combat bi ñun ñu yor micro yëpp seetaan nañ combat bi ni mu demee. mu ñëw bëre mbañik bëre mu bañ bañik bañ ba yaakaar naa ne jël mujjee ci am mu nekk ñaari combat yoo xamante bi ni wax dëgg yàlla marqué na amateur yi saison bi kenn ku nekk sa combat bi ngay génn muy Saba ak ki nga xam ne mooy Ardo bu golfu gaynde léegi nag ñaari mbër yaa ngi ni damay jege ki nga xam ne mooy Saba bu Daaru Salaam borom ñetti waajur yi maa ngi baax di la bëggee. waaw asalaamaaleykum di nuyu gars yi fi nekk ñëpp ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sama ñetti waajur nuyu sama mbokk séeréer yi naan leen joko njal kam jeg combat mi fo ardo le juillet bug nu ngar ndamtam te a paax waaw te ref combat na andoona yee kam yaakaara nuun te soxla nuun te a paax bug te ndamit koy a paax a paax a paax <laughs> allah yaakaar naa ne am na solo duma demagul ci ki ardo lan lan lan ci ardo ar adversaire bu a jaar faxar jàll euh, rek kese loolu rek moo ma dugal ci moom parce que gars yàgg nañ ma wax ay adversaire yoo xam ne dañuy daw rek mais comme moom moo ñemee taxaw nag ñëw affronté ma waaw bu bés baa nag na taxaw rek comme ni mu ko ñemee nii ba def ko bu bés baa na taxaw waaw bu bés taxaw rek bu mu arrière benn pas ma fekk si ko. mais est-ce que umpale woo Ardo gis nga fi mu jaar ñoom caatu rëbës. amul umpale maa moom xamul waaye moom xam na. ya wallaay Azim. am na lu mu xam wax caaxaan. tegal foofu sa Ardo bu golfu gaynde borom mafia bu dëgër maa la siyaar bu baax di la bëgg. waaw. auzu bilaahi ay nawaan yàllaaw ñu sant borom bi julli si yonentam tedd bi sant borom Tuubaa bu baax a baax. gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall. di sama sëriñ alaaji Cheikh Aziz Maam Modou Moussa Fall fee mu nekk ci àjjana suñu borom dolli koy leer. waaw di sant xalifaam. maam Modou Moussa Fall bu baax a baax a baax mi fi nekk. di ñaan yàlla woyofal yan bi si kawam diisal ko bu baax yan bi te mu may ko kattan bu nga ko yennoo. macha allah barke Sëñ waaw. am na solo waa ji nee na gaa ñett xamul mais ñaar xam nañ. ñaar ah, lu mu xam na ko wax fii rek. jege seen ma ne lu mu xam na ko wax fii rek. Mhm. waaw. lan moo du yow yaay choisir quoi gaa yi man ñi ma doon kii amaana tëb na ko wala romb ñi ma doon xool romb na ko quoi parce que man xam naa sam bopp waaw loolu la. mais gis nga fi jaar ay ñoom Mara doomu jàmm gën ay ñoom kii nu mu tuddati dofu jaas. yàlla xam na ni mosuma seetaan lambam. daanaan la de. mosuma seetaan lambam billaay wallaay taalaay man sam bopp rek dooy na ma da soutien de famille la bu ma xëyee damay dóor maa ngi sam bopp fukki suma kenn man sam bopp laay concentré xool ma Modou xool ma Balla Gaye moo nekk sama xool bi. Saba amul ku muy bëreel te tegiwoo tànk amul. mais te yàlla rek tax yàlla bu mu dellu ginnaaw laa koy ñaan. booy nee na boo dawul mu gaaw no loolu li xam nga nuñ dudd euh, ndekki ndekki suba kenn du ko lekk tey waaw lu suba yàlla rek ko xam ñun dañuy ñaan suñu borom ci barki ramadan bi weeru ramadan bi mu may ñu ndam di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak hmm. waaw di sant waa Xayra Fall bu baax di woote tamit gars yi ñëw jàpp si làmb ji comme niñ si a ak ñoom Omar Ndiaye Xaadim Amar waa diaspora bi yëpp Jibi Kayta waaw Sultara. des des ci waaw Sultara Jules Fonde. foo taxaw dala fay fekk. damay woote ko waajal préparé ko bu baax man bu may ñëw lépp laay indaale. Ardo la pël bu ñuul bi. da ragalul dara man lépp indaale. lépp laay bu doon tey sax day neex. man amul problème foo teg sa tànk mu jëli ko. jëli man yow xam nga ne dama koy teg lu journal loolu tàmm naa ko. <laughs> ajoog moom waaw. <laughs> dégg naa ko nag mu def benn sortie mu ne mu ne sabaa bu jàppul ngeen du daan. Ah, laajal ma ko loolu. sortie yow est-ce que du dégg naa ngay ngay ngay ngay kiiwee. daa mel ni yow dégg naa ngay ngay ngay kii de. ki la wax lool da ngay dem nga dem nga dem nga xool affaire yi man awma temps pour wax si yow sax ndax xaw ma la waaw. noonu la demee. nee na xamuma laaj ko kii fekk naa ko seet ikri di ko jàngal bëre moom mii mi ngi nii taxaw. taj taj am na. <laughs> man mënuma waa xam xam nga loo tax mënuma waa xam yàlla xam na ni billaay ràññeewu ma ko. ràññeewu ma ko suñu. billaay ràññeewu ma ko li mu wax moom boo amee moom la moom la concerné. nee na fekk na ma suñu écrit billaay wallaay taalaay din ya la ñuy daje n'est-ce pas mm. j'espère bien. Mm-hmm. foof la ñuy daje dañuy daje entrement yéen fay nekk di foo di bëre di def yëfu boo yooyu man seen grand la man nekkuma foofu <laughs> man nekkuma fi foofu man entraînement bu ma taxee jóg damay entraîné pare dem yéen a fay nekk di foo di def yëfu boo yooyu man mbër bu mag laa de demal naa ngi rek. <laughs> dégg nga de wallaahi azim laa la waatal man. gis nga li ma la wax ma la wax de wallaahi azim damaa woor weeru koor gi nii fekk naa ko ikirem di ko jàngal bëri. nee na ràññeew la muy def non man xale laa. barki Seydina Mouhamed xale bu ndaw laa di muy def ma naan ko du nii nii la wallahi azim bu amul yàlla na ma daal. mais loolu que bokk na ak fi mu ne nii dugg ci géew bi ñu tëj dama lay wax rek dama lay wax rek kon damaa xam ci lu bari. ok maanaam loolu mooy xam ci yow lu bari damaa xam ci moom lu bari tama man damaa dund ci keppaaru làmb nee na tànk bi la lay jox aju di liir journal man sama famille yaay day bëre sama famille papa day bëre ñëppay bëre man damaa dund ci keppaaru làmb laa la wax nee na deret la ci moom da koo judduwaale rek Sénégal amul ku bàyyam téewul ngemb baa mu roof caxabal baa mu wéyale xattar bi ñun ñëpp suñu bàyyi am na lu ñu fawee ci làmb làmb ñun ñoo ko moom anglais bi moomu ko portugais bi moomu ko fii la Sénégal la bokk waral fépp doo ko gis ñu ngi koy defee ku koy defee noonu. Mm-hmm. waaw amaana daa am ñu si focus di si dox am ñoo xam ne doxuñu si suñu waa kër amul kenn ku si dox. Mm-hmm. mais du ñàkk kenn ku teewul ngeen foosi wa kon làmb ñun ñu mbir la ñun ñëpp yooyu amul solo. li am solo mooy man ñoo koy jongante maa ngi ñaan yàlla moom mi am doole moom mi am ndam yàlla na ma kàttanal may ma doole ma bënn la nga peer ma jàpp la yéen lu parce que dóor suuf match bi tas. man moo doon de. ji. ku ci nekk. sa premier mhm. mhm. boobu bëggatuma ci sax wax. Mhm. parce que tamit nit bu la boo boo defee dara bàyyi loolu xooli sa kanam. combat boobu dañ ma ne dugalal. Uh, médical vendredi doo bëri dimanche ma ne leen déedéet li ma fere ci sama làmb du ma yàqee noonu suma làmb. Hey, eh, baal Macha Macha daan dama def soog barki Seydina Mouhamed laa lay wax bi ñu ñëwee ñoom kii bi ñu ñëwee lépp laa leen won Euh, maanaam rajo yeeg lépp laa leen woon wallahi azim Abdoulahat ne ma dugalal vendredi ma ne ko li ma ñàkk ci suma làmb barki paase ko waxal ci kii paase ko moo tax ma wax noonu kii li mu wax nii da ko dégg bu baax mu ne ñëppay làmb ma ne ko ñëpp duñ làmb ñun ay doomu séeréer la ñun dañ leen xajal rek ñu ñëw dugg si pël pël foo ko déggee ci làmb <laughs> pël foo ko déggee ci làmb amut Papa Sow dama la ne eh, ma ne salaamaaleykum ah. dama ne la nga dem ci dëkk nga dem ci dëkk. Eh. ñuy bëre ñu ne la fii dëkk poli poli ñoo fi bëre xanaa caay la ñu sol. gars xam nga ñoom ñoom ñun ñooy seen buur. est-ce que yaa ngi comprendre. li mu li mu xéwluwul tey moo ko sonal ñoom xam nga fa ñu lekk waa ndekkee cere beeg yooyu noonu koor gi day déliré di teg mais làmb amul ko ko fooyawul Sénégal loolu amul. ñun ñoo ko moom Sénégal du du du kii kase fi nekk séeréer kase fi nekk pël. mu ngi fi làkk yëpp mu ngi fi voilà noonu la demee ñoom na dañ ko jël def ko kii nu mu tudd def ko seen aada seen culture quoi xam nga dañoo ñëw fekk gars yi jël culture yëpp xam nga ñoom amuñu buñ buñu bu ñu foowee ñoom ñu jël lamb bëgg ko féetewoo mais làmb moomoo ko te bu bés ba dinaa la wane làmb moomoo leen ko da ngeen see am cër ñu am si cër waaw da ngay jàpp jox ma macha allah yaakaar naa am na sola man li ma jaaxal si bés ba dama ko bëgg xamal leen su bés ba dinaa ko won fi mu war a yem ci làmb fi mu war a yem. waaw fi mu war a yem ci làmb maanaam pël fi yem ci làmb laa ko fay yemale. man de li ma jaaxal man sama côté séeréer a fi nekk ci digg bi ab naar a fi nekk ci côté bi pël man daal lamb ji man làmb ji ñu ko sekk ma jaaxal fan nga war a yem ci làmb. Ah, aw ma si yam waay li ma tax a jóg faaw ma def ko pël bu ndaw bi ngay wax. fi waaye jege si kaay kaay ardo kaay ardo kaay buur fi muy yemloo jaamam sabaa ñëwal moom pël la. yaa ngi dégg buur fi yem loo jaamam rek laa ko yem di waaw dañuy woore ñu woote di woo waaw diaspora bi yëpp Jules Fondé waaw borom borom association la souris mm-hmm. la souris ou la souris waaw mm-hmm. da ciy jàpp bu baax ñu ngi koy woowaat bu baax a baax mu ñëw jàpp si Omar Ndiaye mm-hmm. waaw xaarim Amar Jibi Kayta ñu ngi leen di woo si combat bu baax a baax a baax di woo Baye yëpp ku luxum ku lim rek jum waaw ñu ngi tàllal ñëpp loxo Pape Niang monsieur le maire mënuñu ko fàtte waaw da siy jàpp bu baax a baax moo ñu jox oto ñu ñëw xam nga di woo Lat Diop bu baax a baax Cheikh Omar Mbaye ñu ngi lay woo bu baax a baax waaw maam Ibrahima mbay président ECHO ñu ngi lay woo bu baax a baax si làmb ji làmb ji seen làmb la waaw di di jégaluwaat si li ñu joge waaw di ñaan yàlla moom mi am moom mi kàttan moom mi am kàttan yàlla ñu kàttanal may ñu ndam si kaw Saba. jërëjëf ñuy barki Sëñ Fallou. lay woote. nuyu nag euh, sama mbokk jullit yeeg mbokk chrétien yeeg ñoom ñëpp. Mhm. di leen jégalul tamit ci koor gi di leen masawu tamit quoi di leen ñaanal jàmm mhm. ci koor gi. di leen wax yàlla na yàlla nangu koor gi bu baax a baax métti na trop. Mhm. waaw léegi man damay woo ku ci mel ni honorable député Awa Niang moom moom day jàpp ci man bu baax a baax di woo monsieur le maire Baye Diop. waaw kooku jàpp ci man la. di woo mafia bi nag mafia sabaay bu baax a baax ñoom Modou Bandé ah maa ngi leen di woo Abbas maa leen di woo bu baax a baax dem ba Touba woo fa euh, Diop Tafa Diop. Hmm. mi nga xam ne moom may jox ci garab yi vitamine C yeeg vitamine O yeeg X yeeg lépp. Hmm, hmm, waaw di ko di ko wax di nuyuwaale tamit Badiane xaritam. waaw di woo Moussa Diaw sama nijaay. borom mbaaw maa ngi koy woo ñëpp laay woo lamb ji déggoo li ma wax. nañ ma jox sama benn paar rek. moo tax ñëpp laay woo du ma bàyyi kenn. di woo 100 pour cent yaraax bi nag ci mel ni Serigne jur maa ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi Serigne Sène. di woo Ablaye Wade di woo Mansour caatu yaraax numéro 2 maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn waa yaraax gépp question kenn nekk rek côté mobilisation fan ngeen ci toll parce que tamit kii bëgg na yeneen combat yoo xam ne supérieur na leen mais dan na leen yéen li ngeen euh, yor ci mobilisation maanaam maanaam xam nga supérieur nit mhm. ñoom ci combat lañ ko teg mhm. maanaam moo ëpp combat moo la supérieur man ci loolu nee na sama bër bu mag la euh. won man kay ci mobilisation. wanante leen ma la wax de ci mobilisation dinaa ko ci woon lu bari. da ko ci noyyi. billaahi wallaahi taala man ku xam-xam ne maa moom benn côté bi. ci loola lépp nee na dina la noyyi de ci mobilisation. waaw ñun ay ay mbokk amuñu sax ay fan club ay mbokk taalibe lañ am. di si woote rek yàlla na fekk ñëpp am temps ñëpp am jot. ñu woo waa parcelle 1 ba 26. waa gox ñëpp ku luhum ku lim rek jum Baay Faal yi ñëpp waaw. woo ba Touba loolu mooy li ma lay wax. ci suba kenn du ko lekk tey. waaw waaw <laughs> noonu la demee. mais ñu ngi si woo ñëpp rek. waaw ñu si daan jàpp ñëpp nañ si jàpp bu baax baax a baax gis nañ ñu si jàppee sama grand ngañ da sagana NBA. ma ne Poro xajul si koñ. waaw gis na ni ngi siy jàppee ñu ngi lay woowaat bu baax a baax a baax. am na a photo Habib. waaw yan sponsor ñoo ku gunge ci bis bi balaa balaa mbëree photo. benn sponsor rek muy l'écran. léegi lan ngay wax gars yi. Ah. sponsor ñaata. yoon gis nga sama làmb nu muy mel. Mhm. bind naa bindaat man nag du ma topp ci nit nag di daw. incha allah l'écran doy na ma sponsor. Mhm. ku ma woo ci sama làmb ñëwuloo. Mhm. c'est juste pour ma may la visibilité. mais du xaalis. incha allah l'écran bu dee xaalis rek dooy na ma ci sponsor. incha allah waaw. am na solo booy kaay la ngeen taxaw. maa gërëm di ko sant. kon nga maa ngi koy gërëm di ko sant. muy meew bu baax. ci yaram. macha allah dégg nga mu neex ci koor gi. macha allah voilà meew mu sell nag. waaw. ñaari koñ rek nag booy dafa yàgg. non non foog ma foog ma woo nag. dafa yàgg quoi damay woo waa hmm. waa Touba Seras yëpp. Hmm. waaw waa Touba Seras yëpp bàyyiwuma ci kenn woo waa Daaru Ñaay. yaraax bi yëpp Dalifor. Mor Matissar Cité Déggo. yaa ngi dégg waa Thiamène nag mention spéciale à vous di woo Aram Thiam maire Thiamène kooku moom sama yaay la di ko waaw di nuyu Ndeye Khady Diagne waa Thiamène yëpp maa leen di woo ci combat bi le 24 juillet ah. ok maa leen ci woo ñoom. macha allah am na solo yaakaar naa ne gars yi kon rendez vous bi la le 24 juillet damay bàyyi ñaari mbëri ñu photo ak promoteur bi jërëjëf.